yéen a ngi teewlu info 221 asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci biir info 221 xibaar yu wër te leer ginnaaw bi nga abonné ba noppi ñu ngi lay ñaan nga activer cloche de notification yi pour yeneen xabaar bu wàccee ci biir kër gi nga njëkk ko am ñu daal di fas yéene wax ci soxnaap ki nga xamante ni moom mooy maître El Hadji Diouf ginnaaw bi nga xamante ni dañu ko daal di cité ci benn détournement de billet maanaam fi nga xamante ni foofu lay liggéey muy IPRES dañu ko fa daal di jiiñ dafa daal di détourné ay billet yu bari. daal di koy fas yéene def xaalis ba tax ñu daal di koy porter plainte ginnaaw bi nga xamante ni loolu jàll na dañu ko daal di risqué tëj lu toll ci cinq ans de prison ba tax ki nga xamante ni moom mooy euh, maître El Hadj am lu ko metti lool ginnaaw bi nga xamante ni daal dinay dégg yooyu les propos ba tax muy daal di xamle ne kii nga xamante ni moom mooy euh, procureur daf ko daal di war a relaxer euh, purement et simplement parce que ki nga xamante ni moom mooy clientam bi elle innocente ginnaaw bi nga xamante ni loolu jàll na mu ngi daal di yëkkati ay kàddu moom leader PTP boobule di xamle ne mbir yi dañu ko daal di def rien que pour nuire li nga xamante ni moom mooy sa personne ginnaaw bi nga xamante ni ñii di waa Seneweb daal di nañu koy tàllal seeni micro pour mu daal di fas yéene wax ni mbir yi demee daal di nay xamle ne. dafa fas yéene porter plainte ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa quotidien ginnaaw bi nga xamante ne ñoom ñoo joxe boobule information te nekkul information bu wóor loolu ki nga xamante ni moom mooy maître El Hadji Diouf daal di yëkkati li ma fi jotoon na ruus ci xibaar li des ci information yi dinañ leen ko baaxee ci nu ma gën a gaawee incha allah.